تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم, وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من ku fi ñëw ku ne loolu moo la fi indi bu ko defee nag xew-xew bi moo di ne dañoo wara a daloo dañoo war a inaugurer bi nga xam ni mi ngi tudd Mahad al Azhar Cheikh Mouhamadul Mourtala doon école bu nga xam ni sëriñ Bachiru moom sëñ Murtada moo ko sos ngir jokk ko ci liggéeyu sëñ Murtada bi sëñ Mouhamadou Murtada muassisu maahidil azhar di jàmbaar ja di ku nga xam ne moo fi gindi moo fi dindi ak réer moo gindi tamit nit ñi di jàng di jàngale nga xam ne ca loolee la jeexal ak dundam gépp ngir nit ñi gindeeku ngir nit ñi xam ngir nit ñi jariñoo seen àddina ci anam gu nga xam ne day tënku ci diine ngir nit ñi tamit mën a am texeeg ëllëg loolu rekk ci la sose l'école yi mu doon nag école yu nga xam ne amul ji ak seen école yu nga xam ne ñépp la xajoo école yu nga xam ni tamit référence la ci enseignement arabo islamique fii ci réew mi loole nag la Serigne Bassirou xam waajuram wa Cheikh Mouhamadul Mourtada la mu newoon def ci ak dundam gépp ngir mu wone ne moom sëñ Basiiru ne loolee adhéré na ca loola bokk na ca loola ndax sëñ Muntaram sëñ Mourtada mooy waajuram moom mii mu doon deretam ba noppi mu adhéré tamit ci gëm-gëmam aku doxalinam ngir mu wone ne ci liggéey bi laa bokk ngir mu wone ne la sëñ ba ne woon ca lay ne moo tax mu ne na sos école bu ni mel ngir mu doon participation ci liggéeyub sëñ Mourtada bi doon école bi dugal ko ci Al Azhar fii ci Sénégal mu doon école bu nga xam ne nag ci mbay la ko tabaxee ci liggéeyu mbay ci lan sose école bi moom ci boppam mu ne lépp lu aju ci sima xeer suuf moom moo koy gàddul boppam keneen ku ko cay fekk fekkee ko ca ca lan koy fekkee ñu tabax ko ci ñaari at yu teg tuuti ci lenn sos bi mu doon R plus 3 ñu tàmbalee jàng depuis le 20 octobre ñu ubbi ko xale yi tàmbalee jàng mu amagum préscolaire ñetti niveau yépp mooy rawda am tamit élémentaire CI CP ce ak cm ak ak nga xam ne ñaari niveau la amagut muy ce ak cm mu doon nag yor programme franco arabe bi nga xam ne moom la état bi di doxalee ay écoles franco arabe loolee ñi war koo daloo tey moo waral ñun ñépp ñu daje fi Serigne Bachiru mi yemul rekk ci sos lekool bi am na beneen jamee bu naan jamiyatu almanahil assafiya ngir dimbale ngir jàppalanteeg sëriñ daara yi ak daaray alquran yi nga xam ne loolu mi nga ko tàmbali woon depuis 2007 ci jamonoy sëriñ Saalix yàlla na yàlla yokk leeram te taas ci barkeem ginnaaw bi sëriñ Alaaji Baara moom itam yàlla na yàlla yokk leeram te taas ci barkeem mu jox ko ci ndigal boole ko taalibe yépp rek nga xam ne fépp fu mu fi dem ci réew mi ñi xam ne lii mu ne ci ndigal la koy defee lii mu ne tamit fépp fu taalibe ne war na cee jàpp muy jàppale daara yi bu baax a baax nga xam ne at mu ne mu jox leen ay ndimbal yu takkoo takkoo yu nga xam ne ku ko doon lim ay million yu bari la boole ko ak école njote sayaan ba nga xam ne moo ko sos gàddul ko boppam ba ndimbal fekk ko ca ba fi ñu toll nii kon daal li nga xam ne moo ñu fi dajale mooy dañoo war a inaugurer école bi école bi nga xam ne ci Al Azhar la bokk nekk ci gox bi di jaxaay Parcelles Assainies bu jaxaay ñu sos ko ci ñaari at ak genn wàll kon mat na jaadu na itam ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi ñu xam ne école bii kat dañ ko tuddee al azhar rek mu bokk ci al azhar école bii kat sëñ Bachirou da ko sos ngir wane participation ci al waaye waa gox bi ñoo ko moom ndax ci seen suuf lañ ko tabax waa gox bi ñoo ko moom ndax seeni doom ñoo fi jànge seeni doom ñoo fi defaroo kon gox bi war naa bàyyi école bi xel bu baax a baax liñ ciy teg rek mooy ñi tuddal leen programme bi dañu ne woon day teel a tàmbali 9 ba ba tisbaar moom lañ programme woon pour li ni xewal lépp ñi xewal ko ci diggante boobu waaye xaw naa xawa a yéex a tàmbali waaye du tee rek danañ fi mën a ne ba li ñu fi indi lépp ñu def ko nañ ko bëgg a defee bu ko defee programme bi ni muy demee moo di ci kanam tuuti danañ jox ku nga xam ne mooy ubbi jataay bi ci alquranil karim loolee buñ ca jógee danañ eh, woo ay xale yu nga xam ne fii ci école bi la ñuy jàngee bu ko defee ñu def ay uruud ay prestation yu nga xam ne danañ ko def ci ñetti làkk yi nga xam ne ñu ngi koy jàngale ci école bi ci français ci anglais ak ci arabe bu loolu weesoo tamit danañ def benn sketch benn xiwaar bu nga xam ne tamit élèves yi ñoo koy def ci ñetti langue yi ma tudd léegi ginnaaw bi itam ñi nga xam ne ñooy xale yu ndaw yi nekk ci raw rawdatul atfal di préscolaire bi dana ñëw te def benn prestation war a wëy maanaam hymne national bi ak yeneen wëy yu nga xam ne ñi leen di jàngal jàngal nañu leen ko ngir ñi mën a xam li nga xam ne moom lañ fi ne bu loolu weesoo itam dana dugg ci kàddu yi maanaam ñi fi nekk te war a jël kàddu ñoom ñëpp bu soobee yàlla dana leen jox kàddu benn par benn bu loolu weesoo xam naa li ciy def rek mooy ñu déclarer ne kat école bi maanaam ubbi nañu ko ak xéewal yi nga xam ne waaj nañ ko ngir mbooloo mi foofa la ñuy tëjee jataay bi incha allah ko defee kilifa yi fi teew yépp bu soobee yàlla kenn par kenn wala mbooloo par mbooloo ci kanam tuuti danañu leen tudd ci seeni tur ak mbooloo yi nga xam ne ñoom lañu ñu jiite. kon ki nga xam ne moom la ñuy waajal ngir mu ubbi jataay bi ci alquranil karim ñoo ngi sàkku ñi yor loola ñi eh, na jege ñu jegeel ko micro bi microphone bi bu ko defee mu jàng baadil ayat min alquranil karim ki koy jàng tudd Khady drame xadi Dramé doon élève fii ci école bi moom mooy ubbi jataay bi ak alquranil karim fat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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراغ ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم ñetti làkk yi dañ koy dañ ciy jéggalu rek xam naa ba beneen yoon ngir liggéey bi mën a avancé waaye euh, liñ ciy teg mooy xale yi nga xam ne doo nekk ci préscolaire bi war a def fii ay prestation woy hymne national bi ñoom la ni sàkku ki leen yore ñu jege ñu jege placé wu ngir mën a def liggéey boobu buñ ci jógee benn dialogue bu ndaw moom itam ci ñetti làkk yi ñu fiy jàngale loolu leen di wéyal bu ko defee daal di dugg ci kàddu yi kon ki nga xam ne moo yore xale yi ñu jege si dama xamut est que kon microphone bi moo leen di fekk si walla waaw ki yor microphone bi na leen jege. la